أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكي يوليدي موكي طالبي يني سافو سين سيت انترنت سيخ برافال بوين كوم نيجي ام بكتي دي انداتا يين تي اميسيون بي ني واخ يي اك بوك سين راك سين خاري سخنا مام سو تخفا دي جيتال بي خليفة عام لتائفة المريدية شيخ سيدي محتار مباكي يالنا سيني بروم غودال فانام ba lépp loo xam ne yéene na ko ci liggéey la suñu borom mottali ko di ñaanal kilifa dina yi di leen nuyu ak kilifa aada yi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi teewlu jamono ji suñu émission yi bii di jotaayu soxna yi kon mbokk yi mu mel ni euh, keroog defoon nañ émission bu njëkk di ko jagleel sox sox suñu mbokk soxna yi doon ci xamle jigéen la njëkki lislaam ni leen jàppee woon ak bi lislaam ñëwee wute yi ci am ak jigéen responsabilité bi war ci moom ak gëdd bi ko suñu war a dogal ci moom ak sàmm wante gi mu war a sàmm wante mbiru diineem xam naa dañuy ñëwaat rek ci ñaareel émission bi juddee ko rolu jigéen ci lislaam waaye balee boobu dañuy xamle jigéen ni mu war a mel jigéen lan mooy rolam ci lislaam waaye dañuy daal di jël rek ki nga xam ne mat na royukaay sëkk muy soxna Mariama Jaariyatullah euh, ñu koy wax la voisine de Dieu mooy ki nga xam ni dafa fonkoon suñu borom danga ko liggéeyal dëkkaaleeg borom bañ koy woowee jaaratullaahi mooy dëkkaaleb yàlla bi kon tey dañuy ñu ci moom indi dundam jikkoom ni melo woon nga xam ne suñ defee ci moom ay jàngat wax ci moom rek dinañ xam kan mooy dëgg-dëgg soxna si dinañ xam tamit lan mooy rôle jigéen ci lislaam dinañ gën a xam tamit lan moo ñu waat ñun jigéen ñi ñu gën a teg lu bëree bëri gën a euh, xamaat tamit suñu gëdd bu baax a baax ak lan suñu borom dogal ci ñun kon kooku moom mooy maam jaareetul Jaaratullaahi di wayjuru eh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom lañ jaakaar tey ak moom soxna jaara wayjuróom bu góor mi nga tuddoon Ahmad soxna Buso doomi Hamad ibnu Isa ibnu Ousmane eh, ba ci Xasanul eh, Masna ndax ñu ngi naan moom buñ toppee ci wàllu kër baayam mi dem ba ci sëtu Sayyidatuna Fatima muy doomi Sayyidina Ali nga xam ne moom sayyidatuna Fatima moom mooy oh, maamam te sayyidatuna Fatima ki ñuy wax Ali ibnu Abi Talib moo ko yoroon di borom këram te ku nekk xam na ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo nekkoon baayam kon nag soxna jaara bu ñu toppee càllale kër baayam sarif la ku baax la ku bokk fu baax la te sët la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam na ci moom comme Serigne Moussa Ka ni mu ko doon taggee rek naan ko Mariyaama ummu Ahmadul Mbakkiyu doomi sëriñ mbasi doomu sëriñ mbusoobe may waliyu wahiya bintu ahmadu mbusoobe xaalil xudaati saaxibil xaruba salilu fatimatu bintu mustafa salla alayhi rabbuna ka mustafa tamat juduudu jaaratul ilaahi axna bi marimo bila tanaahi kon kooku mooy sëriñ Moussa Ka ci wolofal bu neex boobu way wala way yu neex yooyu mu defal soxna Mariama di xamal askanam nga xam ne moom ci sal ci ci ci ci ci askanu saydatuna Fatima ci la bàyyi ko kon nañu xam man bu baax a baax xam ne moom soxna si noonu rek la mën a mel ndax ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sama foo ñaar rek baax rek ngay mën a def kon balay boobu dañuy xam le kan mooy way juróom bu jigéen moom mooy soxna Aysatu Mbàkke ñu koy wax soxna waalo moo nekkoon way juru soxna jaara di ko xam ne ku jàmbaar la woon ci wàllu diine ci lislaam ci fongum fonkoon suñu borom ak xam nuñ koy jaamoo naka noonu ak géeju gi mu géeju woon mokkal gi mu mokkalu alxuraan ak ci fannu xam-xam yépp ba boo ko musaana gis mu toog di jàng alxuraan góor nga koy teg ngir jëm ji yéeme jum yéeme ak ragal gum ragaloon suñu borom mooy waral boo ko musaana gis mu toog solub jàllaabee moom gor nga koy tek kon koku sohna euh, soxna aysatu wala mbàkke di soway juru soxna maryama jaaratullahi mom nekko nako xamni xam ni jamu borom la comme ni ngi waxe abiratun taqiya wa waria wa alima mutabaxira fi mutabaxira fi kasir min ulumi din kon mom soxna aysatu wala nekko na xamni xam ni jamu suñu borom la beggon ko fonkon ko lol ku selon la won tamit ku sam wante won la ak fi din liko li ko ci digam ak boromam moom soxna Aysatu Waalo nekkoon na koo xam tamit ku géeju woon la ci mboolem fànni xam-xam yépp nekk woon dafa moo alxuraan rek boo demee ci uh, tasawuf noonu la koy dundee nga dem ci sharia lu mel ni fiq noonu la koy dundee nga dem ci lu mel ni uh, xam-xam ay ñoom taw tawxiid yu demee noonu comme ni ko ni niñ ko xamee rek moom soxna si noonu la ko doon dundalee kon uh, nekkoon na koo xam ni ku daan def ay ndajal la ngir ñuy ci wàllu jàng muy xam-xam naka noonu ci wàllu waare ak delloo si nit ñi seen borom moom soxna Asta Walo moomu muy Aysatu Mbàkke moomu di wayjuru soxna Mariama Buso muy jaaritullah kon nekkoon na koo xam ni ku daan def ay ndaje la ngir di ci xam xamle suñu borom di waaraate ngir xupp nit ñi wala boog ngir xamal leen kan mooy suñu borom ngir ñu delloo seen xel naka noonu loolu laan defee tamit ay jamayaat mooy ay mbooloo di boole nit ñi ngir lan ñiy gëstu lu mel ni ay xam ak yu demee noonu uh, targu mu taroon ak xarañ ak ñaw ga mu ñëwoon ci wàllu xam-xam ak xeer gu mu xiroon ci wàllu xam-xam nekkoon na xam ne danaan dundal euh, daan di jaamu suñu borom di jàng alquran comme ni ko gaa yu baax yi daan defee ndax moom soxna Aïssatou Wala wax nañ ni dund 138 ans muy téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett moom la soxna si dund nee nañ diir ba mu amee fanweeri at la tàmbali di nafila kamil te kaamil boobu sax guddi juróom-ñaari rakk rek la koy def juróom-ñaari rakk lay julli astaghfirullah juróom-ñetti rakk lay julli te juróom-ñetti rakk yooyu kaamil la koy naafila moom soxna Aysatu Waalo Mbàkke moom nga xam ni moo nekk way juru soxna Mariama Jaaratullaahi kon mën nañ ni jaamu na suñu boroom wala boog euh, ràññee nañ ni moom tàmbali woon na jaamu gu tar googu muy wéetal suñu boroom googu nga xam ne àggoon na fu yéeme ci diru téméré at ak juroom ñett ndax nee nañ bu mu amee at la tambalé di dundal guddi nga xamné daawu nelaw mi ngi def di jaamu yalla def azkar istighfar di jang alquran yu am solo yooyu nga xamni ni yu baax yépp mom lañ mëna kon soxna jaar fu mu jaar euh, baax fu mu jaar sel ndax way juroom ba dañ ko waajal way juroom ba tamit waajal ko kon dañuy xamni ni lépp rek euh, ciosan la daal ndax liñ wax naan way jur mom moy école bi njëkk ci ay ci domam ndax té limu limi def d'abord rek balaa jàng fenn ci yaayam lay njëkk a jàng kon macha allah muy soxna Aysatu Waalo Mbàkke nee nañ tamit moom soxna ay Waalo Mbàkke daan na sol ay jàllaabe yu diis yoo xam ne boo ko musaane fekk mu toog maam buñ la waxul kii jigéen la doo ko gëm ngir agum agons fum agon ci suñu borom jaamu yàlla ga ak dëggu ga ak dëggal ga ak nim ko daan jaamo xamal no xamni mom jigen la way suñu borom dako indi ci aduna ngir mu jaamu comme ni ko suñu borom waxee ne wa maa jinna wal insa illa liya'budun mom soxna Aysatu wala mbak bokul ci ñi nga xam jàng rek jefe wuñ ko ndax jàng na bokul ci comme suñu borom ñu ci alquran nan masalul lazina xumilu tawrat suma kama kamasali ximaar yahmil asfar jàngul won alquran wala xam-xam wala xam-xamu dina wala sharia wala fiqh daal di jël la ko rek comme ni ko suñu ba ko soxna ji defee nga xam ne da ngay da ngay rus wala boog sax doo ko gëm kon soxna Astuwaalo ni mu doon jàngee théoriquement pratiquement lépp daf ko doon def kon am na solo bu baax a baax ñu jàngat ci bu baax a baax ñun soxna yi jàngat ci bu baax a baax ci ci ci jikkoom yi baax yooyu kon moom soxna Aysatu Waalo Mbàkke mi ngi noonu moom dund na 138 ans te bi mu amee fanweeri at la tàmbali di jaamu suñu borom noonu kon moom soxna Aysatu Waalo moom mi ngi faatu ñu denc ko foofule ca naawel kon yàlla na ko suñu boroom doole ay leeram doole koo gërëm fa mu nekk ci àjjana ci firdaws ñu ngi koy ñaanal euh, bu baax a baax te ak liggéey mi nga xam doon na ko liggéeyal suñu borom suñu borom fay ko ay yu bari bari kon jaamu googu mu doon jaamu suñu borom kon li borom xam-xam yi naan. هذا الإخلاص خارج جزيتا من جزائها بالمتيها مريم جارة الله بصو kon liggéey gi noonu liggéey suñu borom te amul benn gisal àdduna wut lépp li suñu borom rek la xam ne suñu borom da ko bind ngir mu jaamu ko ah ak lépp loo xam ne rek war nañ cee jaam suñu borom muy wàllu àdduna wàllu diine ñu ngi doon jëflanteeg seen borom kër yi kon loolu la ko suñu borom fayee muy soxna Mariama jaaratullahi kon kooku mooy way juru soxna jaara comme la alxuraan di wax naan wala baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi ndax Ah, boo demee si suuf su laab nga jël sa ah, ji bu baax nga ji ko fa lu ah, gàncax gu baax rek lay sax waaye comme ni ma koy waxee boo demee ba ci sën ba nga ji fa sa mm, sa sa sa sa saw jiwu donte baax na tamit bu màggee kenn du ko jëriñoo ndax fañ ko ji daa baaxut kon soxna si moom fa mu bawoo lépp tawféex la fa mu bawoo lépp lu baax la fa mu bawee tamit na mu mel kuñ ñi soxna Aysatu Waalo mooy waajuram kon kenn du ci am benn sikki sàkka kon kooku mooy waajuram benn donga boo xam dafa nekkoon ci Maam Anta Sali ñu naan euh, soxna jaara moo nekkoon yaay daaraam ñu koy wax euh, Masamba Mariam Diop muy askan askanle soxna si naan asilatun watanan sharifatun nasaban karimatun xasaban tafdiluhu baana muy wax naan soxna si moom ku dëkk ci fi fi mu dëkk ko fa dëkk wala mooy bu ñii fi mu dëkk rek dañuy xam ni soxna si fii la cosaano dañuy xame fii mooy dëkkam dañuy xam tam ñi ñoo ko meññi takku tedd doon la tamit maanaam askanam tamit ñu te ñu ñu ñu ñu baaxoon lañ askan wu sell lañ askan wu ay sharif lañ ci fa mu askanoo ci muy wàllu gëñoom ci wàllu kër baayam tamit ñu baax lañ ñu fonkoon alxuraan ñu daan jaamu suñu borom lañ kon seen gëneel rek moo feeñaat muy soxna si kon noonu la noonu la koy misaalee moom euh, Samba Samba Mariam Diop mi nga xam ni soxna si mu nekkoon yaay daaram foofu la ci kër Mamour Anta Sali kon li ñu wax na al ummu madrasatun li awlaadiha kon soxna jaara daal ki nekkoon euh, référence am ki nga xam ne moom la daan roy mooy maam muy euh, mën nañu mooy wayjuram moom nga xam ni moom mooy soxna Aysatu Waalo Mbàkke mi nga xam ne moo liggéey liggéey bu roy boobu bi mu génnee jamono ñu denc ko foofu la ca naawel kon ma ñëw le kan mooy soxna Mariama Jaaratullaahi fan la gënee jamono ak nan la nan nan la demee kër Mamour Anta Sali moom lay nga xam ne fa la nekkoon di liggéeyal boroomam ba am fa leeram googu nga xam ni ni mu ko doon waxee mooy asamaan mi nga xam ne dafa ëmb jant ak weer muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon euh, kan mooy soxna jaara tullaahi moom soxna Mariama Bousso mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax mu Mbusoobe ci Jolof bi nga xam ni baayam jóge na ci wet gu ñuy wax Fuuta Toor foofee ca rek soxna si mi ngi gane jamono euh, ci atum miladiya 1833 waaye bu dee ci atum hijriya ñu ngi wax naan xawaalay 1249 ba 1250 kon ci ñaari dat yooyu la ñuy wax naan moom la 1249 ba 1250 ci atum gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon soxna si moom mi ngi yaroo ci peggu ndayam muy soxna Mariama soxna Aïssatou Walo Mbàkke mi nga xam ni mooy borom xam-xam ba mu sosu mu sos ko mu sosu fa ci sosin rafet muy mu yar ko yar boo xam yarub lislaam la yarub diine la yar ko ci yar bu baax ba ba tey ji mu mën a am li nga xam moom la am ci boobele bi tabi tayiba mooy euh, environnemental bu baax bu sell bu bu neex a dund ci la soxna si dund muy bëgg yàlla di ko liggéeyal fonk ko fonk alxuraan di jaamu yàlla ak sàkku xam-xam ñoom seen askan noonu lañ nekkee woon ba ni ñuy faatoo lu baax rek ñoom moom seen seen dund ba ni ñuy faatoo lekk ci liggéey suñu borom rek ci lañ nekk kon soxna si moom bu melul nii rek tooñ ñu wax ni moom soxna euh, Mariama Jaaratullaahi mi ngi jàngee ci way juróom bu góor woowu Mouhamadou Mbusoobe ki nga xam ni al alimu alamati shahira mooy boroom xam bu mag boobu nga xam ni mi ngi siiwoon ñu koy wax sëriñ ma buso moom soxna si mi ngi mokkaloon alquraanu karim woo ko woolu <coughs> mokkaloon na ko man koo bind ci jàng ci toftale ci tajwid comme alxuraan niñ ko xamee euh, niñ koy jàngee soxna si noonu la ko mënee woon nga xam ni li ñuy wax naan euh, nit moom bu moqalee boo ko yeewee ci ay nelaw sax day da koy tari kon soxna si moom foo ko musaana tàmbali ci alxuraan rek mu àggale la ko ndax mokkal gum ko mokkal mokkal gu wóolu mokkal ko ci xolam bind ko ci nga xam ni alxuraan moom moom moom ba faawu kon moom soxna si way juróom bu moo ko jàngal alxuraan mu bind kaamil diiraan bi diir bi mu amee fukki at ci la mokkal bind géeju loolu ci alxuraan ah, naka noonu tamit noonu la noonu la ko nijaayam ba ñuy wax tafsir mbàkkee ndumbe moo ko jàngal lenn ci téere xam-xam yi lu mel ni mabaati u fiq moo ko jàngal ak lu mel ni ahadis muy hadisu nubawiya muy hadis yi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko jële ak lu mel ni siira sa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lu mel ni jaar-jaari yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi koy wax siira ak dundam ak dunduñu saxaabaameeg waa këram yi kon nijaayam jooju di sëriñ tafsir mbàkke ndumbe moo ko ko jàngal naka nonu soxna sami jàng na xam-xamu sharia yi lu melni tawhid ak fiqh ak tasawuf ak yu mel nonu ci ci fànni xam-xam yep muy ci yeneen xeetu xam-xam yi lu melni muhtasaru shaykhul khalil soxna si jangon nako lu melni fi fiqh imam malik ak maqamatu hariri fil adab wal lugha wa ibnu muhayyib muhayibu fi sirah wal anbah nu ba xayriha kon soxna si mokkaloon na téere yëpp ba kon nekkul ni soxna jaara dañ koo yaroon rek dafa mokkal alxuraan rek waaye mboolem fan xam-xame wala mboolem téere yi nga xam ne rek soxna si ñi ñu baax ñi daan nañ koo gëstu di ko jàng moom soxna noonu la ko mokkale woon noonu la gëstu woon la amee woon xam-xam ko jàngee noonu kon mujj na nekk koo xam ni mm, asbahat mo mutaalima wa muallima misla ummiha kon nekk mujj na nekk koo xam ne boroom xam-xam la ku géeju ku xarañ ku ñëw comme way juróom ba di soxna Aysatu Waalo Mbàkke kon nañ xam mi soxna jaara moom jàmbaar la woon rek nekku woon rek di liggéeyal boroom këram waaye nekk noonu la doon sàkku xam-xam di ko liggéeyal uh, boroomam kon moom soxna jaara nekkoon na ko xam saalifa ku jiitu la woon ci comme mm, ni wax naan uh, ñoo jiitu woon ci seen boroom ak ci di ko liggéeyal kon ci jamono ci soxna si soo bu jëm ci yoonu ñuy wax yoonu suufiya di dundu tasawuf te boobu mi ngi am daanaka fukki atam euh, mat na wala bokk teg na lu tuuti moom soxna si si la tàmbalee gën a taral ak soobu gim soobu ci yoonu tasawuf ak di liggéey suñu borom ak fonk ko di naafila di def istixfaar di def ay azkar nga xam ni daawul nelaw guddi daawul nelaw bëccëg ni muy fonkee borom këram noonu la suñu borom kon soxna si nekkoon ko xam ku daan dund tasawuf la ta ku yaroon la tamit ci yarub lislaam ak noonu jihaad ak bakkanam surveillance gi mu amoon ci ci boppam ak fa mu askanoo ci wàllu kër baayam ni ñu meloon kon soxna si moo leen rawoon ci surveillance gi mu amoon ci boppam muy daan contrôler digganteem ak boroomam ba daawu ko moy ci benn fànn kon euh, ci comme niñ ko xamee woon rek ci jëfi boroom xam-xam yu baaxee kon soxna si noonu la nekkee woon kon kooku mooy soxna si nekkoon na koo xam ne tamit daan na jàng yeneen xeetu téere lu mel nii dalaa ilu xayraat moom soxna si ne moqaloon na ko lool nga xam ni ay salatu ala nabi bamu jeex la muy julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon soxna si mokkaloon nako lolé di dalaat ilul khairat kon nako nonu dañuy ñëw ci jaayante gam jaayante won ngir jëm kër Mamour Anta Sali mom soxna si kon soxna jaaya nenañu dikam kër Mamour Anta Sali mi ngi sababu la mi nga jóge ci soxna Anta jaay ndax dafa mësa a ak Mamour Anta Sali ni ko man de sëñ bi dama sàkku dama bëggono sàkku ci yow nga jël soxna si di Mariama Bousso ndax moom kan gis naa ne ku baax la ku bokk fu baax la ku sell la ku wéetal boromam la yar bi ak njàng mi ak lislaame gi nekk ci moom suma ko ci kenn te gën naa ne boo ko jëlee soxna di nga am lu baax te lépp loo xam di nga ko saako tamit ci jigéen ju baax dinga ko ci am naka noonu soxna Anta soxna Mamour Anta Sali daan ni ko man de damaa yorul ma ko jox muy ci jamono ju cangax soxna Anta Ndiaye bu doon ci suñu jamono ji ñu ne or yi ñuy denc ak xaalis yi lam dencoon moom jël jaay ko jël xaalis ba jébbal ko Mamour Anta Sali ngir mu def ko Ah, can gi nga xam ne da ko ñëw soxna jaara kon ñu taxaw foofu seetlu tuuti ñu xam ne kon soxna Anta moom tamit ku baax la ku sell la ndax ñoom ñëpp nit ñu baax lañ ñu daan liggéey seen borom lañ te boolewuñ ñu dara woon boolewuñu woon dara ak i wax waaye bu doon jamono jii ko fi sa borom kër waxuma la nga imposé sa borom kër mu tàkk soxna de lu mel ni deuxième femme wala troisième femme ba quatrième waaye koo ci déggoon rek koo ci xelmati woon na ni sa sëriñ am na ku muy bëgg yow mom waxuma la defar waaye yàqare ngay fete wo xana kay mu nek lo xamni ci sobre suñu borom bu ko neexee bu ko naqare yep suñu borom moko dogal dina am waaye da ngay gis ku jog di yaq digante sama borom ko day bëgg am ñaare nga dem sab xarit mu la ah dangaa ñàkk fayda togal fofu rek yi de bo toge dina la taqal ñetteel bu ñu yaqal sa digam sa borom kër nga dem ni ye dañ koy jibar ak di sëriñtu yaq diggante ba wal xataa bu ñëwee nga ñu du fi doon dara yaq ko ba nga xamni dootul nekkati sax ko xamni ku ñu xol la te loolu lu mat a bàyyi xel ndax suñu borom moo ni fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa sulaas wa riba fa in xiftum ala taadilu fawahida suñu borom moo ni na ngeen taq ñaar ñett ba ñeent bu ngeen ragalee nag wala bu ngeen ragalee ñàkk maanu gi kon na ngeen ñem ci benn su nekkee mu ñu leen a maanu na ngeen ñem ci benn kon suñu borom moo dogal ñu am ñaari soxna ñetti soxna ba ñeent kon soxna Anta Njaay mi di waajuru mam Cheikh Anta borom dar salam kon def na lu am solo te jëfe na tamit ndigal borom ndax su ko neexoon du ko imposer señ bi wala bok su ko neexoon sax donte suñu borom mako dogal xalaat ba rafet du ko am waye jam guñu bax won ak jaam guñu jaam seen borom ak niñ won seen borom gëni ak ñom dañu sax ko barké rek loolu moko ci jublu won bi bi ko Mamour Anta Sali demon ci wajuram ba ñu waxtaan ba jubo soxna si ak yaram ak teginam ak yar ñu ko yene ci l'islam ñu xamé Mamour Anta Sali ko xamone xamné ne rek moko ñoroon ak suñu borom ak du jëm ci walu soxna si daal leen di nangul loolu bi bi nga xam ne mi ngi dem kër jamono jooju bu ñu lay yàpp bokkut ak léegi nga xam ne ay paan ay siwo ay meuble ay verre ay kaas xeetu parfum yooyu jigéen ñi jëfandikoo moom lañ la yebbe waaye bu njëkk ba boo daan dem ku nekk day taxaw daal la yàpp pour nga bàyyi xel li nekkoon ci ginnaaw mi mag ñu baax ñi sëy li daan sëyee ci jëf lu baax dégg seen digalu borom kër topp seen borom topp seen borom kër moytu lu bon moytu wu jege ju demee noonu ju baax loolu nga xam ne daa leen ko sant moom jamono jooju loolu lañ daan def muy seenu yàpp kon soxna si bi nga xam ni toog nañ ku nekk di ko digal di ko conseil ci lu baax moom soxna Mariama Bousso dafa boobee la ibi kaamil ah, yam ca aaya suñu borom mi tedd yooyu mi wax na wa ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulillahi wa xaatimu nabiyin mi ngi ci suuratu ahzab aaya kon mi ngi yem ci fi suñu borom naan muhammad nekkul bàyyi kenn ci yéen muhammad ndawul yàlla lu ñu yónni la te moom mooy ki mujj yonante yi kon suñu borom mi ngi wax naan muhammad dama ko yónni ci yéen ngir mu nekk ab yonent nekk koo xam ni day jàllale samay message nekk koo xam ni dafay jëlee nit ñi ci ak réer indi leen ci sama diine ji nekk koo xam ne moom mooy ki mottale yonent yi te mooy ki ci mujj kon foofu la yam ci la soxna si giñee daan ni maa ngi wàcc yàlla ne su nekk woon lii suñu boroom wax ci alxuraan dinaa fi indi ab yonent waaye nag indi fi yonente da waaye fi koo xam ne moom mu fi représenté salallahu alayhi wa sallam di xaadim rasulillahi di jëwriñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam kooku lee mooy xaadim rasul kon soxna si euh, euh, loolu am na solo bu baax a baax kon war nañ ciy jàngaat bu baax a baax bépp soxna boo xam ne yaa ngi dem kër bis boo deedee dem nga am yéene bul ni damay defante ji defante sax ci lu baax bu fekkoon sax ci lu baax la jar na defante waaye defante ci lu bon defante moom bu ko waxee intention bañ ko am daanaka baaxoo defante ji mooy nga dem di xëppante ji asi bak ndax loolu boo ko defee mooy amoo intention baax waaye booy sëy ne que sëy suñu borom moo ko farataal ci ñun a farataal gën koo fonk nekkul ay caaxaan ba dugg naa jaamu sama borom kër mooy dinaa topp ndigalam topp sama ndigal borom kër bañ koo moy ndax kat ku nekk xam na ne suñu borom kër ñoo ñu dugal àjjana waaye du caaga ñi da ngay dem rek ngir nekk ci di xeesal di meesu di jaagari jaagari xeeti cuuraay yeeg parfum yi footol di kañ nang kañ nangi ku a xam-xam ku xam-xam kon loolu di ab nekk lu mooy sëy sëy far yàlla ko farataal mu nekk loo xam ne dañ koo war a jaamu nekk loo xam dañ ko war a fonkaat xam tamit nu ngi koy defee kon soxna si bi dem intention yu amoon mooy liggéeyal boromam foofu la ca këram ak Mor Anta Sali kon nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax yéen a jëm amoon nag moom rek la ko suñu borom fay te sallallahu alayhi wa sallam mi wax naan aqalahunna mahwuran aksarahunna baraka mu ne ki gën a tuuti ci yéen can moo ci gën a bëri barke kon nañ xam ni can moom mu gënee néew rek gën a barkeel lu am am solo kon jamono ji soxna yi daawoon yéen rek dem di defante jeg di xëppandi asab jamono ji comme ni ñu ko waxee nag kaana fudalaati nisa tasabaxna bi amali saalih wa tarbiyati awla tarbiyati islam saxiixe saxiixa وطاعة الأزواج, وطاعة الأزواج والخدمة الصالحة والنية الصالحة وإرضاء أزواجهن yuwaafiqu shara kon ñu xam ni jamono jooju jigéen ñi daawuñ njëkkalante rek ci ay liggéeyante moom góor gi noonu ko yu demee noonu jamono jooju soxna yi daan nañ njëkkante ak di concours jëf lu baax rek toujours ñu ngi njëkkante ci jëf lu baax yar njaboot gi yarul islam di leen digal ni naafila nu ni wéetalee guddi ñu baax ñu lu daan nekk seen borom kon yu mel noonu lañ daan digal seenu njaboot naka noonu tamit noonu daan toppee seen euh, borom kër yi digal bu ñu def bala ñu leen tere sax ñu bàyyi wax ma la ñu leen ñu tere kon naka noonu daan liggéeyee liggéey bu sell mooy lépp lu ñu daan defar dañ ci daan jiital yéene ju baax muy di liggéey suñu borom ngir sàkku ngërëmam ak seen ngërëmi borom kër daan am yéene bu rafet ak njort bu rafet seen digganteeg seeni wujju daan am rafet daan am njort bu rafet seen ak ñi ñu nekkaloon ak daan am njort bu rafet seen digganteeg seeni borom kër comme ñoom noonu lañ daan def nga xam ni dañuy topp seen digalu borom kër waaye day dëppoo sharia nga xam dañ ci am digalu yàlla am ci gol suñu borom waaye bu dee ci jamono ji moom da ngay gis ni ñu ngi njëkkante ci ya, ay takkaay ay yére rafet daal yi rafet bu rafet tey eh, bu rafet mi di xeesal ñii di njëkkante ay kër yi rafet ay oto ñii di wët ay meuble ñii di dem di commerce bi ñi di concours tukki ñi di concours ma appelé xaalis yo xamni amul ben sens amul la fayda fi do ci am ngërëmu suñu borom ta te ni rek la lay indil ndax toujours rek la Serigne Touba nan aduna mom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dàq toujours fekk faatu mi ñuy dàq nga xam ne aaduna duñ ko jot te faatu moom bu ñu jàppee niib rek la ñuy def kon nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax muñ suñu mbokk soxna yi loolu lépp amul sens ñu delloowaat suñu xel bu baax a baax ci mag yi nga xam ne nekkoon nañ fi doon jëfal seen borom ak di ko jaamu ci ñi nga xam ne noonu la ko suñu borom bëggee kon bis bi nga xam ne soxna Anta Njaay dafa toy ko soxna si di ko wax naan ko bëgg na ma fa séeneel maa liggéeyal fii sama borom topp sama digal borom kër xëy na su ma ko defee noonu suñu borom dina ma wërsëgalee ñaari doom yu yu baax yu sell yoo xam ne ay leer lañuy doon lu mel ni jant ak weer kon soxna Anta Ndiaye loolu la ñaanoon euh, ci bis bi ñu wax ak soxna si te noonu ci la ko soxna jaar wax ni ko dama bëgg nga may ma ba suba ma tontu la soxna si daal koy nangul suba ga soxna jaar daal toogal soxna Anta Ndiaye ñi waxtaan fekk dane ko won am halini sa araddu sa araddu sa arudda alayki dalal ma ba suba wala may ma boog ba suba insha allah may ma ak dal bu suba dina tontu bañ soxna si daal di wax ni inni sawfa ati uti rabbi wa awamira zawji وأخ وأخلص العمل لعل الله يرزقني بولد مثل السماء سخنا جارة دي سوبا غبان داني سخنا أنت من دي فس في نافي لغي سان بروم توب سمي ديگل بروم كر تا گم ناري سوما قد فنون سنين بروم دينا ما ورسا غلي والا دينا ما ماي دوام جو خامني داي ميل كوم وير تا كوم سخنا أنت جي أمون نيين لول باي نيان دوام جو خامني دانا ملي وير والا جانت ناكو نيك خامني وير موم لير لير ناني لي ما شاء الله ndax day toll guddi yoo xam ni day mel ni comme yaa ngi ci bëccëg naka noonu jant tamit gis nañ ñi fenkee ci neer ba di dem fu ne kon lu am solo la waaye soxna jaatam tamit moom ni ko yàlla na ko suñu borom may lu mel doom ji mel ni asamaan nga xam ne muy ëmb jant ak weer kon mm, nañu xam ni noonu la ko soxna waxee ni ko ëllëg ëllëg yi axaatat ak sams wal xamar mooy asamaan si nga xam ne mooy wër jant ak weer kon kooku mooy Serigne Touba Xaadim Rasul waaye bu ñu ñëwee as-sams wal xamar mooy maam Cheikh Anta Gaawaan ak muy euh, muy sëñ muy sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñu ngeen koo xam ci maam Cheikh Anta Gaawaan borom dërëm ak ngërëm di borom Daaru Salaam ak euh, ko di rakkam muy soxna Serigne Afia Mbàkke di. Euh, wayjuru sëriñ xaasim moom nga xam ni ñu ngi ko gën a xam ci sëriñ xaas mi nekk masu ocas kon ñaar ñooñu ñoo nekk weer ak jant kon ñoom seen liggéey mooy ñu amoon njaboot gu barkeel njaboot goo xam ne ñu wéete suñu borom lañ njaboot xam ne ñu liggéey yàlla la fonk alxuraan fu ñu toll kon ñoo xam ni eh, loolu mooy nekkoon seen yéene ndax doomam jooju di Cheikh Ahmadou Bamba day daan ñaan ci Matlabul Fawzayni nan wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqaa wal birri yaa ma naa ko yow sama borom maa ngi lay ñaan soxna yoo xam ne soxna yu baax yu sell yu tey yoo xam ne dañuy dimbali ko ci jaamu yàlla ak ragal ko yow mi nga xam yaa aji dimbali kaakoon gi kon soxna su baax baax na ci dund ndax benn dina la dimbali ci wàllu jaamu yàlla ak éducation nga xam ne moom la war def ci njaboot bi dina la ci dimbali bu baax a baax naka noonu jëf yi nga xam ne tey dañu ko waroon jëf nga jubbanteekoo loolu dinañ setantal sa xel dina dal bu baax a baax foo dem man faa nekk ngir jaamu ga di jaamu seen borom ak ragal ga ak wéetal ga ak dëggu ga ak ni ñu dëggalee di ko jëf nga xam ne ni koy fasee seen xol di ko yéene yéene mu rafet noonu lañ koy jëfee seeni cër mu baax mu baax lool nga xam ni du ci am benn sikki kon loolu ñaanu seexul xadim bi yàlla ko suñu borom defal ñëpp waaye Samba Mariam <coughs> ma Samba Mariam jop moomu tamit nga xam ni mooy doomi Anta Dieye bu di doomi di doomi madun numbe bu ya pen doomi euh, Médoune Penda bu ya di mumsi Seydi Maxtaar numbe jop mo nekkoon gi nga xam ne soxna si moo nekkoon yaay daaraam foofu la jëkkër maama Anta Sali ba mu fay nekk kon moom day way soxna si ay wayu neex nan ko xamdan li man jaala islaama waajiduna wal kufru wal jahru xusraana mu foxdaana aska salaatin ila ma salaami ala محمد ساد من الله خدانا وبعد فالخصد بالمنظوم مدحتنا لسمحة سميت بجارة الآن إن زارها جائع أو زارها ظمأ صار بما عندها شبعان ريانا وكم حرائر علات حملنا فلا يذكرنا من ذكرها إتعوتها بانا يا سائلا نائلا فاسأل بجارتنا وامرر بها طلق إحسانا وإحسانا كم مستعين أتى وهي أتاها وهي تنجده فرتد ينجد إنسانا فإنسانا كون موي كو ويو نيخ يو yooyu di julli di sant boroomam mi nga xam Ah, l'islam di luñu war di di musal ni ci ak wedd suñu borom nga xamni ah, mu ngi julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam gën nga rafet ay nuyoo ak ñaan di wax naan muhammad mi nga xamni mom moy kilifa gi nga xamni suñu borom dafa ko muy ko jégué ginnaw loolu mi ni mi ngi mi ngi way way bi nga xamni bi amé autorisation wala biñ ko permettre ci moy soxna si nga xamni ñu ko tuddé dekalep suñu borom bi mu ni soxna si nga xamni bu ko ku xiif mësaana ganes yi doy regg naka noonu bu ko ku mu mësaana ganes tamit da ngay da ngay màndi ndax mën gum joxoon na mën gum mënoon a joxe lekk ak naan moom soxna si ku yaatu woon la ku yi woon la te ku gore woon la ku mënoon a sàmm doomu aadama la muy kóllëre gi nga xam ne suñu borom defoon na ko ci moom kon in zaaraha jaaun aw zaaraha zamaun saara bi ma ay ndaxa shub an rayana kon bu ko xiif wala ko mar bu ko musaana gares moom soxna si da nga danga da nga mar da nga da nga mandi ngir bernde gam lay berndel kon ñun luñ mën ci xeetu bernde ak di ko teral doomu aadama rek ñun soxna yi nañ ko def ta bàyyi wàcc xel bu baax a baax kon ñu nga wax naan ñaata wujju la amoon ndax ñu koy wakam xaraa ila allah nu xamal bi ñaata wujju la amoon yoo xam seen tur giim na duñ leen tudd di soxna si maanaam amoon na ay ñum nekkaloon kër mama àndasali ñoo xam ñu bëggoon seen borom la ñu jàmm danga ko liggéeyal waaye soxna si fu mu tolloon ci suñu borom buñ ko musaan tudd rek day yóbbaale lañ ci des ñi ci des dañuy génn daanaka du jël ñu leen tudd ngir dafa liggéeyu yaal ñëpp ngir fu mu tolloon suñu borom kon mu ne yow mi nga xam yaay laaj na nga romb soxna jaara ndax ko dem fa moom la ngay sàkku di nga ko am ndax moom rafetal rek lay def ndax ku bëgg tamit ñu dimbali la boo musaan dem ci moom moom soxna si mu dimbali la kon moom soxna si nekkoon na koo xam ni ku daan bëri la lu muy julli guddi di werdu fajar gi muy def ay istighfar daan ko wóor daan ko jaamu suñu roon daan ko jàng alxuraan ba benn bis ñu laaj ko ne ko hal turiixiina jismaki yaa Mariama soxna si ndax yow doo noppal sa yelam bi yow daa ñu fukki yaa ngi julli di wóor ah di jàng alxuraan di jóg guddi di sa yite yëpp nga jof ko suñu borom ndax borom ji jamono ji dañ naan ah njuuma la ah yow ñu jommal ñaan sa doom ji bañ cee wax rek nga wàcc ko muy jaamu yàlla xale bu ndaw demagul fenn nangam nangam nga xam ne dañuy yàq sa xelu waajur bu nekk koo xam saytaana fekk na ko mu la koy tere fekk loolu lu baax la kon soxna si moom ñim nekkaloon mi ay waajuram ñoo ko jëmbatoon ci moom ba nga xam ni fu mu toll rek loolu la yaramam laaj ndax yaram bu tàmm jaamu yàlla fu waxtu wa da koy def waaye bañ ko laajaloo moom soxla ne ko ndax yow da nga lu noppalu moom dafa indi ñaari ay alxuraan ci ñaari ay ci alxuraan di leen wax naan suñu a nax naan كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا manam guddi nga xamni nit ñi dañ cay nelaw yow nga neewal sa ay nelaw nga ni bërët jóg ci nelaw yi neex fekk la nga xam ne ngay ay nelaw nga jóg di ci jaamu suñu borom di ci naafila mu ni suñu borom mën na def nga nekk koo xam ni defal ay maqaama nekk koo xam ne sant ngay ro mi ngi ci suratul isra ay 79 mu waxaat ni kaanu xalila min al layl ma yahjauna bi asxaarihim yastaghfirun mu waxaat ni aaye boobu suñu borom jox naan bax ñu ñu jitu won dañ daan juk ci fi nelaw yi neexee dana bërit jóg dag nelaw yi dem bi jaamu seen borom bu jaamee dina fa dina fi la naka nonu fajar gi tamit dañuy dañuy dañuy def ay istighfar di jégalu seen borom ko mom soxna non la fi mu ne la fi mu jappante ak ay ñoon nga xam fi wax naan fi la nelaw nexé fa la bërët jóg dem di la ji naka non bu jël jotee tamit day tok di di def istaxfaar di di di jégalu suñu borom di def ay askar muy tudd yàlla kon moom soxna si foofu la tegoon tànkam ñu koy ñaanal yàlla suñu borom fayal ñu ko mu ngi nekk ci Zaariyaat aya 18 ba 17. kon euh, moom soxna si daan na jëf di daan na jëf li ko suñu borom digal nga xam ne diggam ak boromam dara daaw ci manqué waaye diggam ak borom këram dara daaw ci manqué nga xam ne daan na jug guddi di naafila di jàng alxuraan di wéete suñu borom te loolu bëriwul ci jamono ji soxna yoo xam ne dañ koy def. ndax son anda ja mës togo serigne touba sëriñ la xaarim niko ah, min adabi salih salihin xiyamul layli maanaam di ko wax ko bokk na ci teggal bokk na ci jëfi bax yi nit ñu bax ñi daan def muy maye maqaama muy jogudi kon te bobu serigne bi waxtu tank la léegi na neenañ bi mu ko ko waxe rek la serigne bi commencé di taxawal gudi nga xamne bobu boobu tu tànk la danaka ragneegul kon mom soxna jaara ne ko nako xamne ku fonkon borom keureum la te ku fonkon tamit boromam la kon ñu waxee naan masa julli te jàppul masa weddi te ñaanul door a xëy sangam tuubal daal di war këram buubal naka noonu tamit noonu la fonke woon yi nga xam ne noonu la dëkkaloon muy ay wujjëm wala donga ya wala xëy na famille baak yooyu yëpp nga xam ni bu mu saana xëy la leen nuyu ji soxna yu ko fa jiitu woon naka noonu tamit noonu la daan jëflante jëflante yu rafet nga xam ni jëfane suñ jamono ji comme niñ ko waykat waxee naan nuy ji ay dëkkandoowam nuy ji njëkk jigéenam soxna Anta Ndiaye mokkum taala antamam maaram nga xam ne soxna Anta Ndiaye moo nekkoon magum këram waaye ko ko fonkoon la léeg-léeg soxna Samit bokkoon na ci ay ngëneelam ak yi jëfam yu rafet daana fekk ñaar yoo xam ni dañoo amoon problème wala ñaari ñoo xam seen diggéen dafa amub dégg mu daal wut lu rafet lu baax wala loo xam lu lu sedd xoolee doon indi ko ci diw daana ko diw kat li sa sa mbokkum diw moo la ko jox ngir seen diggante gën rafet wala ci wax lu rafet daal ba nga xam ne kooku day kontaan lépp lu mu jàppan ci xolam rek mu daal di koy bàyyi mu demaat ci kat na def nag daal nga xam bu ñu gisante automatiquement dañ daan nuyoo di saafuwante mel ni dara mu saxee bu fekkee ni soxna si leen tamit euh, ci ay jëfe yu baax daan def sedd musaana ñu mu raab ay seru rabal daan jox mag ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ngir euh, daan leen ko jox di leen ko jox ay addiye ngir sedd boobu kon moom nekkoon na koo xam ni ku daan jëf-jëf rafet la te ku daan dox mbokk la te neen tamit daan na leen taxanal ay matt sax di leen jox ñi jaaru ci liggéeyam ak fongum fongoon borom këram moom soxna si gis nañ maam Cheikh maam maam Mor Anta Sali mës na bëgg mm, soxla woolu yu taal te soxna si boobu fekk muy taw bi mu amul matt dafa dem yëpp ay yërëm jël gaan baa di koy xaar def ko matt te jamono ji yaakaar naa ko sa borom kër waxoon na ba jël sa armoire bunt bi def ko kafe donte ne mu wax gën lu mat million tamit dangay lànk ba tëdd sa naaj wala xataa lànk doo ci am dooni sax moom wax gën daal di ko ci wax baat yoo xam ni bu xamoon sax du la wax lam la wax ngir ñàkk nga ñàkk xam ak ñàkk gi nga ko ñàkk war maar ak ñàkk xam ak yi war diggante soxna ak borom këram kon soxna si daawul dundee noonu xam na naka noonu tamit dégg xam na li xew foofu ci xuru Mbàkke muy bis ba Maam Mor Anta Sali doon yor xeer wa bay ci defar sàkket wa am lu mu soxla woon ci biir doon ko jëli fal xëy na ay te dab ko fa mu nekk ci néeg nga xamne mi ngi mel ndax bo la taw met ak dunu soxna sa yor nam yore woon sàkket wa non la ko ba xey ndjel muy fajar biko ko Anta Sali di joge di waajal julli fajar genn rek fa dan ko wa soxna si yow loy def fi mun ko man de mbàkke ma soxna soxna si bam waxelo waxee Anta Sali rek soxna mam suñ maamu Anta Sali dafa wat bu baakha baax di soxna si bekk ci tawfeex jooju ak dégg gi mu ko dégg ndigal ak sutura gi mu amoon bi mu ko ëmbaloon ak respect bi mu ko joxoon sëñ bi daal di koy ñaanal bu baax a baax kon soxna si li mu am moom faaw mu am ko ngir lan ngir fonkoon gi mu fonkoon borom këram kon moom soxna si moo nekkoon wayjuru soxna Serigne Touba ah, te ku fonkoon boromam la ndax Serigne Touba dafay wax naan man mosuma gis ku mën a denc sekkere ba mel ni soxna si ndax bi mu nekkee xale def na kiraamaat bu nekk. def ay mujizaat def ay kaw tv re soxna si musuko netali nga xam mom Serigne Touba day wax ci day wax nan musuma gis ko mën dañ dañu secret ba melni soxna jaara comme niñ wax ci minul bal khadim nan lam yakun ya'taru bihi shay'an kama ya'taru sibyan min al bukai wa talahi wa law balagha al hadd min al juu mom serigne bi dawul ne ko xam ne ku ñu rafle la bi mi nek lu tànk kon ku ñu wormaaloon la woon daawul ne ko xam danaan jooy comme xale yi ni def di jooy di sonal seen borom seen seen wayjur yi daan leen teg soog moom sëñ bi moom nekku woon ci yooyu maam ku noppaloon soxna si la donte xiif na ba fa xiif ba fa limitu xiif yam moom sëñ bi kenn mësu koo gis mu indi benn benke ñenke kon moom mu ngi noonu te bokkoon na ci ay ngëneelam bi muy nekk tout tànk daaw soxna si daaw ko rombale ci lu mel ni mbooloo moo xam ni xëy na mooy yàlla mën na fa jib lu mel nii ay waxi gis jëf ndax ndajeem soxna yi ndax soxna si tamit nekkul woon rek daraan toog rek di jaam borom daan na ay dëkkandoo moom ndax dëkkandoo tamit ci la bokk ndax suñu borom moo jël turam wu sedd woowu di arahim daaj ci tëgg rahim muy salatu rahim muy jokk mbokk suñu borom nee na mbokk ku ko dog ku ko ku jokk mbokk ma jokk la man seen man man sa borom waaye boo dogee mbokk ma dog la ndax suñu borom fonkum fonk mbokk kon mënta ñàkk nag loo baax baax nga ne wuy ji waaye ndaje yi ñu daan def te nga xam mënta ñàkk soxna si di dem ngir diggam ak mbindee fi ngir digg ak dëkkandoo ak dëkkandoo sëñ bi daaw ca nangoo dem li muy nekk nekk du tànk kon daaw nangu même romb ñu romb la ko sax foo xam ni euh, xëy na euh, mooy suñu borom mën na fa jib ndax moom nee na ba ma dee bu yomal xiyaamee maa mën taxaw ni saa borom bi nga bindee ba léegi musuma def loo xam ni astaghfirullah dama ciy fekkee kon sëñ bi um, mi ngi noonu rek ñu xam bu baax a baax ni kooku mooy woy juram ngir euh, jàmbaare gum jàmbaare woon ndax Sëriñ Tuubaa day wax naan musumaa gis المهم لم أرغي الوجود أحدا أكتم سرا منها مثلها لأني منذ ولدت بيني وبين يديها إلى أن ترعرعت لم تر مني حرق العادة فأقشته وقد رأت العجائب كثيرة وغرائب لم, لم تفشها ولولا كمالها ولولا فشتها افتخارا بها mu ni man mosuma gis ku mën a denc secret ku mën a suturaal doomu aadama ku noppi koon ba mel ni soxna si ndax ndax sama kéemtaan yi nga xam doon naa ko def te boobu tu tànk laa ndax diir bi ma tàbbi ci ay loxoom ba ni ma raamee ba ni ma xàmmee kon soxna si dana def ay yoo xam ni bu doon keneen la da koy wax ndax nee na boola mu tiitaroo ko wala mu génnee ko te bu boobaa xay dina dëppoog li ma def waaye jigéen ñi comme ni ñuy def léegi nga xam ne lu seen doom wax rek bëri daal nes ñu di reetaan ah déggal diw li mu wax nee na yaay wala nee na papa ñu moom soxna si musta wax lu suñ bi def nga xam ni lam ko defa baag bu mu ko génne woon ci teen baag yan bu mu ko yoroon yu yëpp fekke moom mi ngi ko boot bu boobu tàng la ak wax gi waxante ak moom loolu lépp soxna si mus koo génne moo tax suñ bi ne la musuma gis ku mën a denc secret ak ku mën a sóoraale ak ku noppee comme ni soxna jaara comme ñu xam ni soxna si daal mi ngi noonu rek moom suñu borom rek moo ko fi wàcce woon mi ngi ngëneel ndax li ñaan soxna Aysatu Waal ni mu am soxna jaara jomb ko waaye soxna jaara tamit ni mu meloon kon Cheikh amalu Bamba jomb ko kon ni mu ni niñ ko xamee woon ku mënaan denc ay ayib la tamit daan suturaal doomu aadama te ku toppoon borom këram la moom soxna si naka noonu ci ci ci ci tabe soxna si noonu la tabee woon alalam daaw ko boole kenn lépp lu mu saan yor mindee fi la koy jox naka noonu ci ak lewet moom soxna si ku lewetoon la wexutoon nga xam lewet moom suñu borom moo ko binde doomu wala weex waaye soxna si daal moom ku lewetoon la naka noonu tamit muñ sëriñ bi nee soxna si ku mënoon muñ la muñkat la woon bu mag sax moom soxna jaara te borom tedd nga la woon te tamit nee na soxna si la bëree woon keex sax muy wax ye zaatu xeyaa moom ku bëri woon keex sax moom soxna si jamono ji dama jëlale keex sa de waaye boo ko wër bu doon fukki jigéen la benn jigéen rek moo ci am keex sa kon soxna jaara ku tedd la woon ku ñawoon la ku xereñoon la ku amoon xam-xam la ku mënoon a muñ la te ku baaxoon la borom mi kiraamaat la woon naka noonu la noppee woon boole lewet ga ak tabe ga waaye naka noonu noonu la bëri woon kii sax jamono ji moom jigéen balaa gën a mën a wax wala mu yëkkati ab sëram wala mu génne ay cëram wala mu soxlu sexe dafa dem ci ndajam góor bu demee di manifesté wu di charmé wu nekk une femme charmante xam nga nekk koo xam ne dafay wane boppam daal di manifesté wu te loolu jaru ko ndax suñu borom moo ñu nañu toog te jublu ko ca bàkkaar bu ca ñi ñuy xool am rek ñu am nañu ko ca fokk dañ ci bàyyi waa xel bu baax kon jigéen bu am kersa warul di baraj baraj fu ko neex def lu ko neex def bu nekk rawatina bu ay góor kon kersa lu baax la ci jigéen lu baax la ci doomu aadama rawatina ci jigéen bu ñuy wax kersa jigéen moo ko war a gën a mën a baaxoo naka noonu tamit waax ragal yàlla soxna si ku ragaloon yàlla la doon ko wéetal ci ay ju julleeki nawaafila askar istighfar ko ni ñu koy defee ndax ku nekk xam ne ku baaxoon la waaye ñoom nañu baax baax noonu lañ chaque jour bu ñu saanaxee ñu ngi di seen diggante seen borom di gën di mën a jaamu yàlla di gën di mën di fàttali ko di gën di mën di xalaat suñu borom ci bind gi mu leen bind comme suñu borom dañu fay wàccee ngi ni jaamu ko ñoom loolu la ñu xamoon te dañu woon rek ñu nelaw kon moo tax lu baax li am rek ñu am ko ndax ku nekk xam ne soxna si fanam guddut waaye liggéey bu rëy fi liggéey moo tax suñu borom fay ko lu mu fayul euh, tamit bokkoon na ci ay euh, tedd ngaam moom soxna si nekkoon ku am expérience ndax jigéen dafa war a nekk zaatu xibra muy ko xam ni dafay am xibra muy expérience li ngay def da nga koy xam mën ko xam noo koy defee ndax ki nga xam ne day jaamu boroomam tous les temps du du ci manqué benn waxtu bay naafila di julli lu mel ni comme xeetu yoor yoor gi lépp loo xam sa soxna daan na ko def te naka noonu tamit xereña moo tax sa digg ak sa borom dara manqué wu ci waaye sa diggante ak sa borom nga tamit dara manqué wu ci ndax loolu expérience rek moom moo ko mën a def kon loolu ñun mbokk soxna yi war nañ ci xoolaat bu baax a baax kon naka noonu tamit farlu ga ndax farlu mooy tax waxtu julli jot nga mën ko dagg ndax ku nekk xam na ni jigéen moom dafa bëri ay jitte bu nekkee ci kër gi njaboot gi war la sëriñ bi ay soxlaam xam nga nga war a génn war a def leneen leneen waaye boo farloo rek di nga mën a jaam sa borom mën a def say ndigalu borom kër waaye daal farlu rek moo la ko may ndax ku nekk xam na ni temps dafa cher te temps dafa xat waaye suñu borom da nga koy wéetal rek te ko ca mën a bokk nga bokk ko ca kon nañu gën a suñu borom baax a baax te di ko jaamu nañu gën a fonkaat tamit suñu uh, ndigalu borom kër bu baax a baax nekkoon tamit ko xam ni zaatu xanaa ko doylu woon la moom soxna si foofu nag war nañ fa taxaw tuuti seetlu xam ne suñu jamono ji ak doylu moom dafa manqué ndax su ma génnoon tey gis soxna ma awa rek am fi temu 4 te mo sonna sama borom kër ko soxna ma awa ngi ne ah borom këram bi lu leen la koy defal mi ngi ni fani sa jëndal ko bu ko defé dama jël sama bët teg ko ci auto ba fekk ni loolu may wërsëgam wala xeyna suñu borom bu ne man duma musa la war ba ne may faatu duma ko mësa am waye duñu bàyyi xel dañuy gis ni dëkk ci étage rek nga ni man ci étage la wara gis ni sol gañi la wala jésnier wala mbasin ris nga ni man ko dama ko wara sol fekk yow sa doole maté wu wala bu dee sa borom kër matalu kon bobu su laaloo sa borom kër ta bobu tamit liñu wax naan muñ muñu parce que tamit bu fekkoon muñ gi soxna sa doon muñ ak sutura gir suturaal borom këram ba nga xam ne tey jii doo gis dara ba ni ko defal ma ko ndax mën koo wax mu metti ko ndax la ndagalul am waaye sutura gi nga koy suturaal mooy ak muñ ngi muñ doo ko wax donte bëgg nga ko kon nañuy doylu ba buñ bu ñu bokk soxna bu ñuy gis nit xeesal ñu ni dañuy jël tib xeesal bu ñuy gis nit meesu ñu ni ko dañuy meesu ndax ñàkk doylu mooy dugal nekk ci nekk ndax day dem ba indil la ak séeré dem ba indi la ngay def loo xam ni doo ko mën wala loo xam ni gënul ci yow kon nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax te xam ni Ah, suñu borom li ñu digal ñu xoolaa ko bu baax a baax te jëm cee góorgóorlu kon kooku daal mooy soxna si moom nekkoon na tamit ku ku am xikma moom soxna si nekkoon na ku am xikma ku xeerañoon di zaatu xikma boo xam ne kon soxna si daal lépp loo xam ne ay jikko yu tedd la daje woon na ci moom kon uh, bu ñu xoolaatee bu baax a baax muy soxna si moom dundam ak ku nekk xam ne ni mu gënee jamono ba ni mu faatoo nga xam ni 1833 ba 1866 guddul 33 ans euh, ans rek la muy fanweeri at ak ñett moom soxna si ma liggéey fi liggéeyam bu bi nga xam ne foo mënta jëm tey ci àdduna àdduna rek laa wax foo foo ci mënta jëm boo ne soxna jaara kenn du la ko laaj muy olof ak ab